de faire respecter le temps parce que li ñu dese bariwul te guddi na aussi kon ñi nga xamante ne la ñuy woo en ce moment avant maa woo élage ñi nga wax dañuy def remise trophée yi le plus vite possible ñu def remise trophée pour dix minutes ah remise trophée soit ñu def ko ci lu mu gën a gaawee wala bu boobaa dañ koy joxe après événement bi ñu jox ko après El Hadj Malick pour cinq minutes El Hadj noo def ci loo ne yàgg na fi kay. cinq minutes. voilà merci. salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf dañ leen di jaajëfal bu baax a baax ci li ngeen organisé mi wane ni yéen a ngi dundal parti bi ba léegi waaye li ci ëpp solo mooy yeneen ñuy fàttali saa su ne ñi nga xam ne seen bakkan dafa rot ci yoon wi te loolu mooy li nga xamante ne nii mooy tax saa yu ñu naree yox yoxi xalaat ne amuñu ci droit ndax ñii des ci yoon wi ñii des ci yoon bi tax na ba kenn ku nekk ci ñun ak lu xolam mën a jóg ak xëy na lu ko mën a metti ci mbir mi na xalaat ne am na ñoo xamante ne nii dañu jóg xeex tuur seen deret ngir projet bi mën a yegsi fii ñi ciy delloo rendre hommage ñii nekk fii waaye ñii ñooy image bi mais xam ngeen ne am na yeneen ñaar fukk ñeent fukk peut-être téeméeri nit yoo xam ne des na ci yoon bi ma ci rendre hommage kenn koo xam ne ku ma jege la woon muy Ibrahima Fall photographe kon mbokk yi ci bañ a guddal ku seetaan suñu président démb di nga xam ne pare guñu te waajaguñoo pare waaye ku seetaan suñu président démb dina xam ne jomaay mooy Sonko jërë ngeen merci beaucoup El Hadj Malick Ndiaye léegi nag mbokk yi dafa am ay diplôme de reconnaissance yoo xamante ne ñu organiser daa am ñu ñu ko war a jox wax naa leen léegi ne leen puisque man ngeen ne naa ko naa leen joxeel du ngeen ma imposer nu ñu koy joxee wax naa leen ko parce que le temps daf ñu xoj maître Bamba Cissé représenté par maître Khourey baa am na fi diplôme mën nañ ko koo jox waa JPS am nañ fi diplôme nañ leen ko jox non non non Abbas non non magi am nañ fi diplôme mën nañ leen ko jox waa Modap am nañ fi diplôme mën nañ leen ko mën nañ leen ko jox Abbas Fall am nga fi diplôme maa ngi la koy jox. madame Fatima Mbengue am nga fi diplôme maa ngi la koy jox. Ambroise mu ngi ci buntu maa ngi la koy jox. d'accord d'accord. Monaf ñan la. am nañ fi diplôme naa la ko jox yow nga joxal ma leen ko. mojib am nañ ci diplôme mojib joxal ma leen ko yéen xam ngeen leen Moncap Amadou Ba joxal waa Moncap seen diplôme jot na TV xanaa mën naa leen ko téyel am nañ ci diplôme madame Salma kan la ci moo nekk kan waaw moom aussi am na fi diplôme buñ ko deful lii liggéey bi du àgg et il est 23h40. lépp madame Salma jërëjëf sama sañu noonu. léegi nag Abbas ñaara ci des. dañuy introduire. espoir de banlieue bu ñu paree ñoom lañ am bu ñu paree yow nga def sa discours ñu ngi jot te ñii daa am lu mu bëgg a def nit ñi n'est-ce pas vous êtes d'accord Khadija Mahécor am nga fii cadeau waa sécurité am nañ fi également cadeau kon espoir de banlieue bu dee pare nañ nañ dugg si.

de l'artiste peintre. La, la coupe du styliste. de L'inspiration de l'écrivain. La dimension du comédien. La, du message. L'art, c'est magique. Le message artistique. Une, méditation, une introspection, un bel moment de récréation et de récréation. Voyageons ensemble dans un univers qui relie à l'agréable. À chaque rendez-vous. Sa particularité. À chaque rendez-vous. cachet Le rendez-vous. Grand Théâtre National. De quoi s'agit-il? Cérémonie pour rendre hommage aux martyrs des douloureux et regrettables événements qui se sont passés au Sénégal. Ces hommes et ces femmes dignes fils du pays qui ont laissé leur vie au prix de la liberté et de leur amour pour la nation sénégalaise, leur terre-mère. En disant oui à l'amour du pays. sauverons notre existence. À vis-à-vis, à la